ay ayca bàkk ba jib na générique ba jàppaar na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax fekk la fi nga toog ñuy jox la eh, di la baalu àq ci weer wi di la baalu di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moom rek moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal koor gi ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko ak alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi nii ci écran bi per Birahim mu ngi noonu ginnaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu ñëw ci combat bi père maa lay nuyu bu baax. waaw a maa ngi am subilahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hmm. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim hmm. yéen bokk internet yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant yéen baal àq di baal di ñaan koor gi ñu dugg yàlla bu mu suñu mujj koor yàlla may ñu gudd fan ko ànd ak wér ak wérle lépp luñ ci jaamu yàlla nañ ko yàlla àndal lépp luñ ci juum yàlla nañ ko yàlla soppilaw yiw bi barakatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di leen ni ma leen daan béggee di di bégg waa wasaare di kontaan ak sama doom jili cameraman Adama Bachir de kaagu Ousseyn ñëpp maa ngi nuyu waa groupe bi yëpp daal ak ñi ñu seetaan ñëpp dëgg Ndiaye euh, dañuy indi combat boo xamante ni moo doxoon ci diggante euh, général Malika. ak xale bi di Tony Junior. Tony mu nekkoon tourant boo xamante ne li mm-hmm. traditionnel la fële ci euh, arène nationale. Mm-hmm. journée Fallou Ndiaye la woon. Mm-hmm. Ndiaye production. mu doonoon combat boo xamante ni père gis nañ ci technique. gis nañ ci bëre mais surprise bu rëy da cee am mooy. xale bi di Tony dafa mujjee daan ki nga xamante ne mooy général Malika. ginnaaw loolu dañuy ñëw ci combat bi. père décortiquer combat bi ñu xool Tony man nan la def ban expérience la joué ba gagné combat am général Malika ban erreur la def ba xale bi di Tony daan ko. su ko defee ñu ñëwaat ay ca père écran baa ngi noonu. Mm-hmm. père Birahim mi ngi noonu. mbokk Sénégal ay ca jërëjëf. Mm-hmm. waaw Tony man bon xaw ma ko. Mm-hmm. général Malika laa pour lu ma seetaan Tony bii man mosuma ko seetaan. waaye dinaa mën a jàngat ci li mu bëree. dëgg la ak li ki bëree. boo xoolee. sunu ndejoor fii. Mhm. kan moo fi nekk ku may général Malika. Mhm. Tony moo nekk sunu càmmoñ. dëgg la boo gisee différence de poids bi wute na. Mhm. waaye loolu nag mën naa feeñ ci bëri mën na cee bañ a feeñ. dëgg la parce que gis nga mbër bu mos bu xasee ay cëram jot mu mën a bëri. toujours mën naa daan ko ñu foogul. dëgg la waaye nag ça dépend ci façon bëri ba mu yor. parce que dafa am façon bëri yoo xam ne bu la ko yàlla dénkee. nga mën ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw bu déroulé nag naa xool ndax loolu la bari wala déet. ayca kon nag ñu ngi la parce que léegi fi mu ne ni ñu taxawee nii. Mhm. kii tegal na tànku càmm kii tegal tànku ndeyjooram. Mhm. waaye gis nga tóor yi bi écartement bii. Mhm. yaatu na lool. su fekkoon ne tey jii kii. yàqkat la xoolal dégg xoolal. teel. teel dellool. tuuti moom la dellool tuuti dellool ci léewtoo bi. dellool ginnaaw tuuti. dellool tuuti rek. ci léewtoo bi. ma jàngatal la foofu. ayca bàyyil. voilà. waaw mhm. gis nga avant muy téye avant muy téye laa muy téye. avant bàyyil. voilà bàyyil avant muy téye. Mhm. Ah. voilà téyel fii. Ah. gis nga fii. Mhm. bu fekkoon ne kii mi euh, général mi téqkat la. day kor bi ak day kor bi. def apport un voie un wàcc. loxom bi mosul li wax wi ci suuf nii. Ah, bu ko defee tool yi day day day jéem a bañ. day teq rek wañ ko mu ne daal ah, day teq rek parce que écartement bi dafa ëpp. Mhm. ba pare day corloos yu wàcc. Mhm. daal su li wax wi loxoom bii lay corloos bi bii lay teq loxo bii lay teqee. Mhm. so so bi day jël ci suuf. loolu may wax nag ñi may seetaan te mën a bëri teq. maanaam teq ñi mën a bëree bëri teq. man loolu euh, ku ko mënta ba te li may wax nii man sama bëri la. ndam si yàlla si Alioune Ndiaye yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ko xamoon daan ko seetaan loolu bëreem la mhm. Fass amoon nañu benn mbër boo xam noonu la meloon ku ñuy wax Alsaan Jaxate yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moom it façon boobu bëri la mhm. mais loolu nag ma la wax loolu ma leen di wax nag foog nga mën a bëri bii ma lay wax nii maanaam su kor ba kor loos suli wax la Ndiaye kor loos bés mu suli nga suli wax loolu mhm. moom manin lay doon ayca ñu ñu dem ah, waaw ba delloo fi mu kore demal fi mu téye loos bi. dellul tuuti dellul fi bi. Mm-hmm. demal. de bu téel téel fi mu téye loos bi xam nga doole bi téye na main droite ci loos bi. fi mu ko mm-hmm. téye woon la. Mm-hmm. voilà ak foofu téel gis nga fii. xam nga amoon na loo naa ko ci analyse bëri gis nga fii. général Malika coude bi la waroon téye. du ko dindi gis nga li corps bi mu toj ci loos bi nii. doo ko dindi sa loxo bii moom nga téye ci kudd bi rek teg ni tekk nag. bu dee bëri da ngay tiir fii rek joo ko daal dina ko pakkate ñaar tànk yi ba Pape Malika général Malika amoon na loolu. Mhm. téye kudd bi ne teg. gis nga loxo bi. su téye fii. Mhm. day tiir rek joo ko mu dem mu bàcc boole ñaar tànk yi. Mhm. song amoon na foofu ñu dem. ay ñu dem. ñu waaw. ñu ngi noonu. ñu ngi jaayante. ñu ngi jaayante daal damante baal jàppante rek. waaw. ku ci nekk di xool moroomam. ñu dem. Mm-hmm. <coughs> ñu dem. ñoom ñaar ba tey. Ah, ba tey. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que combat bi nekk na combat boo. xam arbitre yi tam nañuy séddale xaw na diire tuuti. waaw ah. da ngay rek. Diallo waaw ñëw ba jox waaw parce que li mu ëppee waa ji di mu ëppee doole kii dafa bëri. daaw na jël ko waaw jël tool daaw jël ko. waaw gis nga voilà gis nga dëbb sol bi. teel teel teel. xam nga Tony loxoom a ngi ci biir. Mhm. mais kii loxoom dafa génn. moom général waaw général. Mhm. waru war a nangu lii. loxo Tony bii ci biir. Mhm. moom loxo loxoom génn ci biir du yoon. loxoom bëri na gisuma ko xam fu mu ko dugal. loxo bee dugg na ci biir. ci poqatanam. waaw kon baaxoon na. waaye war naa génn bii. waaw moom tafaroon taxawaayam baaxul. xool mhm. taxawaay bi ni mu langee nii. Mhm. baaxul day assuré taxawaayam maanaam bu fekkee pied lay jiital. Mhm. waaw pied gauche bi lay jiital. mu taxaw taxawaay bu jub bu fekkee ne pied droit bi lay jiital mu randal bi indi bëri taxaw. maanaam ci ci boole mooy tànk bi nga xam ne moom la mën a bëree daal. moo la war def. ca ñu dem ñu dem. parce que loxo bi mu ndax ci pokkataan fi ko waa ji sol nii waru ko war a nangu. ayca gis nga dem nañ gis nga génn na. génnaat na. gis nga mu ngi koy xool. Ah. mais boo xoolee différence de poids bi da ngay. Oh, xam dafa ëpp sax dafa ëpp. Euh, bu doon ah. bëre dóor la ñoom ñaar du ñu bëre. Mhm. mais gis nga li traditionnel façon ah. poids bu nekk day ñëw. waaw parce que dem bindu foo da dem bindu foo xam ne bii du waroo foo bindu. Hmm, gis nga xoolal bi. gis nga na jëli ko sukk. Hmm. daaw yooyu yëpp mais sukk boobu mënu ko may dara parce waa ji dafa téye loxoom. Hmm. sukk bi moom moo waroon téye a bu fekkee ne euh, Ah, dañ ko téye mu dem sukkandu bu am dara. Mhm. gis nga ñu dem. Mhm. gis nga xoolal téye na gañoo ko fële. Mhm. xam nga tooni téye kii tooni téye na gañoo ko fële ci ginnaaw. tooni day bañ ah, voilà. mu dugal loxoom. day bañ mu dugal loxoom loolu lay bañ. bu tàqali ko nañu ñu dem. Adama faw nga avancé ko tuuti ndax combat bi dafa gudd dafa gudd. waaw def na lu mat huit minutes ak lu teg. ñëwal ci action yi waaw. gis voilà. gis nga daw na jëli. Ah, waaw kàl ko waaw gis ah. nga. ay ca ñu dem. kal ba dafa ñorul. Mhm. kal ba dafa waroon bàyyi xëcc ko taf ko ba mu ñëw nag. mu mhm. doon déséquilibre doon ko yóbbu mais kal bi dafa ñorul. wala mbot na tooni tooni bañ. Mm, mu mel ni père. mboot bi tamit muy def mboot bi tamit. as bi duggul. waaw yooyu yëpp action yi du action yu baax. Mm-hmm. parce que du action bi da koy togg ba mu ñor. Mm-hmm. ba xam ne boo ko tàntee mu dem mais mboot boo xam ne dafa xalaf rek mais ange bi duggul. te mm-hmm. mboot foog sa wet dugg ñu dem. gis nga ngi noonu. Adama avance ko jàpp na ah xam nga kii jàpp na. waaw xam nga kii nu mu tëddee ah, général jàpp na. Euh, général jàpp bii nag bu jàpp nii. Uh-huh. waru woon fii xaw ma fu muy mujj waaye warul bàyyi jàpp bi. parce que loolu la war na wut gis nga. mbot na ko na téye ba mbootul gis nga li ma lay wax ba téye wàccal fi sukk bi. Hmm, dellu tuur dellu daanoon na jël bi jeexoon na. Hmm. demal action bi. gis nga. ah xoolal gis nga xoolal loxo bi téel. gis nga fii nag. loxo bi day soli waq bii rek. day bàyyi ngemb li mu jàpp day bàyyi ngemb bi te si bi suuf rek dóor ko dënd bi. rek mu jaaxal. lay barke rasulaay bëre bi jeexoon na fi. dëgg fii na tàkk. wallaahi njab. ay ñu dem Adama. Ah, ñu dem. gis nga xool jàtt mu téye amul benn njariñ. ah xool tànk bi ni mu koy jigéñee. Mhm. Tony gën naa sol. ñoo tegaatal na ko seen. ba prise yi muy teg yëpp mënu ko daan prise yi muy def yëpp mënu ko daan. yooyu yëpp prise yooyu muy def yëpp du prise bu war a réussir. lu tax prise bi mënul réussir. waaw parce que ni mu koy da ko def ni ñu ko war a defee. Mhm. parce prise boo ko deful ni ñu ko war a defee bu du réussir. Mhm. waaw mais bis bu ko defee ni mu ko war a defee du rëcc surtout fi mu téye ci loxo bi nii. Mhm. fi mu téye ci loxo bi nii. loxo bële ci boppam. voilà xam nga jëm na téye loxo bi waa ji mu téye loxo bële. mais téye na loxom bi. demal déedéet. demal. ay ca ñu dem Adama. Adama demal. Mhm. demal. waaw voilà teel foofu. Mhm. demal gis nga fii jàppante nañ. waaw mais combat bi père dafa nekk komba bu yàgg. waaw combat boo xamante ni. combat xam nga combat bu yàggee ba yàgg nag te condition physique bi des tamit. Mhm. mën na laa jeexal. Mm-hmm. waaw mais général Malick kii normalement bëri bi ak am nga am ngemb lii nit boo ko pee doole pare téye ko foo xam ne moom mun la téye fenn. Mm-hmm. normalement bëri bi war naa a jeex. Mm-hmm. ñu ngi noonu dox ci diggante général Malika ak. Tony Junior gis nga général lu mu def rek Tony da koy laal li waaw da koy dindi da koy dindi. waaw da ko da ko laal da koy dindi mais même gis nga général Malika dafa am jàpp bu baax. jàpp bi mu jàpp nii ba pare bëri bi war naa jeex. Mhm. waaw parce que kii mu ngi jéem a jàpp ngembali fii gis nga jàpp na ca ginnaaw mhm. waaw xam nga moom it am na jàpp bi gis nga loxo fi mu téye mhm. kër tamit téye na léegi nag ñaar seen ñaari loxo yi la la ñuy bëree ñu dem dem Adama ngi noonu euh, combat baa ngi noonu ñu jàppante nag action bi site bi di amee Adama indil ma action boobu ñëwal ba ci action bi site bi di amee waaw xoolal xoolal xoolal ah sukkar bi voilà lii nag mooy sukkar bi nag da koo sukkar bi nag xoolal. Hmm. voilà gis nga nag xoolal gis nga bi ci digg li ah. gis nga fii ne waa teel moo la teel. teel gis nga gis nga bi mu tëggee mboot fii. Hmm. xam na ne fii ne tëgg na mboot ñu ànd dem parce que ange bi duggul. Hmm. ange bi bu bu duggul. bu tëggoon bu tëggee mboot dina dem. et benn ñaareel ma général Malika dafa doon téye loxo bii. général Malika dafa waroon téye. ci loxo bi muy tëgg bi muy tëgg mboot bi dafa waroon téye loxo waa ji. loxo bi da ko téye fii tiire bi. Mhm. bu tiire loxo bi tëgg mboot ñu ànd jóg ne bi lay toog. dëgg mhm. da koy sukkar bi demal. ay ca ñu dem ñu dem. ñu dem voilà gis nga xool. Ah, da ko sukkar bi jël bu rëy da ko daan. parce bi mu tëgg bu téyewoon loxo bi. Mhm. tëgg mboot bu réussir baax na bu réussir day génnaat assuré taxawaayam loolu moo parce que prise boo ko defee bu réussir baax na mais bu réussir da ngay génnaat. assurer sa taxawaay. moom nag loolu la deful. parce que bu téye woon loxo bi. Hmm. dëgg ko mboot bi ñu ànd jóg. Hmm. yaa ngi dégg li ma la hmm. bu demee baax na su demul mu assurer taxawaayam. loolu la deful nag. Euh, mais père dafa am lu ma seetlu ci ci ci ci ñi ñi ñu tuddee poids lourd. waaw ci ci lutte simple bi. mooy ñoom chaque fois bu ñuy bëree koo xamante ni. Euh, dafa tuuti. dañuy am jafe-jafe. dama gis ci général Malika. dama koy gis ci franc dama koy gis ci ci ëbbali parce que ëbbali boo xoolee final bi ko Zambala di daan noonu la moo ëpp Zambala état boobu moom moo ko ëpp mais taxul mu ëpp ko doole mais lan mooy seen problème ñoom poids lourds yi c'est que poids lourds yi xam nga seen technique tamit dafay limité mhm. maanaam du ñu bëri ay feem comme ñu léger yi mhm. léger yi ñooy ëpp feem mhm. ñooy gën a njaxlaf ñooy gën a mën a dugg génn dugg génn lourd nag du ko mën waaye loolu day fexe ba am ñaar wala benn wala ñaar yu wóor yoo xam ne moo la jàppee mu jeex. loolu moom da nga koy assuré. loolu mooy tax seen bëri day am jom parce que xam nga booy bëree koo xam ne yaa ko suul ëpp ko. da koy def fiir gu jàpp ci da ngay yor ba ne ko niip rek. dëgg la soo nee niip fexeel ba bu mu la jàpp rek. fexeel ba ne ko niip rek tey boo ko tey rek bëri war naa jeex. Mhm. waaw waaye soo ko bàyyee muy wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc wàccee fa ngay juumee ba daanu sax doo ko gis. am na solo looloo la ñu daaneel. Hmm. da ngay juum ba def erreur daanu. Hmm. fekk na booba suq yàgg na man gis naa fi bébé jeen mii. Hmm. daan rëg rëg. te bébé a bëri la. naa kon bala ngeen xam ne du ngeen classe. ngeen dem beneen dëkk. dajeeg ñeneen i mbër. rëg rëg li muy daan yow doo ko daan. dëgg la. li firnde bi ma lay wax nii. drapeau yi muy jël fii li muy neex la ci réew est yaa ngi koy neexle. déedéet te yaa ngi nii daan ko. waaw kon nag léegi kon loolu dafay feeñ ci làmb mm-hmm. muy benn ñaareel ba suq tamit dina daan mbër mm-hmm. waaw parce que gis nga tey jii euh, kër général Mari ko tey kii ko daan nii te mm-hmm. kenn foogu ko woon mën na fee jóge defar mbërëm ba faaw waaw xam nga kaw gu dee mu ngi naan kii euh, kële ma defar mbër euh, desi gaa ma defar mbër waaw mais loolu day am waaw parce que di nga gis benn combat nga xaw ko négliger yaakaar ni kii jaar sàkk laa koy def nga dem am ca mbett. waaw boo dee siwaatee nag di nga dem nga dem daanu ca nga yaraat sa bopp rek ne ah man nii kat ku may jor naa la jox cër. naa la jox ci parce que moom dafa respecté booy bi jox ko cër ba gis nga erreur ñëw mu daanu. sukkar bi boobu mu ko sukkar bi sax bu doon mbërum tànk du daanu. déedéet bu doon mbër moo xam ne dafay mbër këpp tànk la. Mm-hmm. wala mu jiite côté bi loolu daanu booru si benn général Malika. Hmm. sukkal boobu daal lu mbër de. déedéet waaye nag waa àgg na ko foo xam ne fii xëy na côté bi mu féete bi mu koy sukkar bee mëneewu ko. dëgg la bu ko mëneewul bu ko sukkal bee day dem. dëgg la boobu nag moom la ñuy wax tegal 16. Hmm. loolu xewiti xale yi la mais tur tur bi ni mu tudd ci wolof dëgg-dëgg. Hmm. mooy sukkar bi. ñun nag tegal 16 la. tegal 16 waaw yéen xale la waaye mooy sukkar bi. maanaam nga ne coppet waa ji wañ ko sukkar tegal ko. maanaam kale ko sa tànk bi wañ ko mu tëdd nii. loolu mooy sukkar bi. ndeysaan waaw. Euh, jërëjëf mbokk waaye nag naa hmm. góorgóorlu xam ne tam moo hmm. démérité wala parce que soq ko ki ko daan hmm. euh, da ngay xam ne rek soq saa yi daane champion champion war naa defarwaat xam ne ba tey nag téere yi des na am na lu ma dese waaw bu jeexalu téere yi de am na lu des parce que nii moom ne général ma sax ni ma gisee nii war naa mën a ub la waxuma làmb simple bi sax waaye làmb dóor yi sax war na ko mën a ub waaw jërëjëf jërëjëf Père Birahim mbokk yi loolu lañ leen indi woon Père ma lay jaajëfalaat bu baax. waaw jërëjëf may kontaan trop ci tax teew di ci yàlla yàlla yàlla yàggal ànd bi. amiin yaa rabbi yàlla yàggal ànd bi. amiin yaa rabbi musal ci seytaane musal ci lépp lu yàq yàlla yàlla defat lépp lu fi waxit hmm. yàlla yàlla def muy lu neex doomu aadama. amiin yaa rabbi waaw wasaare ca kanam ca kanam hmm. jërëjëf. jërë ngeen jëf kon wasaare ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. ndaanaan laa ñaari yoon bor boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma